dootuma gis dara dara lu dul yàlla ci sama kanam.
dootuma dara lu dul yàlla nekk sama kanam.
te mi ngi may fukk lu ci li may déy ak moom ndax dëgg la ci man wala te dëgg.
ñu ngi may tuur fii may jëlee ak moom ba xam dëgg la wala déet.
maa ngi jàpp ne malakul mawt a ngi ci sama gannaaw xaw ma kañ la yegg.
maa ngi jàpp ni ma la sama sama gannaaw bi ma toog xaw ma xëy na ak.
safara ngi ajjana ngi nii ci sama kanam xaw ma ci laa jëmam déet. safara ngi sama càmmoñ xaw ma ci laa jëmam déet. siraata ngi nii ci sama Siraata ci sama kanam.
ci sama suuf.
ci sama tur diir ñëpp ci àdduna ñu lay bind.
loolu jafe na.
ne ah mais loolu jafe na maqaamum ndax jaambur la.
maa moom jaamu nga waaye gone waaye nay koy
su xiifee.
su xiifee
te àggagul ci lekk bi fekk.
te àggagu ci lekk dëkk te ruyal ko.
mais lu loolu ko mun a da nga amuloo jotu nampal mais ko.
am loo def dàmpal ko waaye bul fab yàpp bu waaye set.
bul fàtt yàpp bu set waxatuma la bu ànd ak yàq mu la bu ànd ak yàpp jox ko ko.
jox ko lu ko dal.
lu ko dal jox ko ko.
yàpp ko
moo di yi nga xam ne du suñu maqaam suñu yoon nekku ci waaye li ñu tolloon nañ ko jéem a sellal.
li ñu suñu maqaam suñu yoon ñëw waaye ñun tolloo suñu ko jéem a seet
yonent bi dajale na njabootam.
mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajale na njabootam sallallahu alayhi wa sallam ne leen sama alal la ngi lu leen ko wax neexal leen.
lu ci waay bëgg na ko am waaye mënalu ma leen dara ci yàlla.
loolu la képp loolu la ci kanam yàlla dara
Cheikhuna Tidiane nee na.
mais Cheikh Ahmed Tidiane yi nee na radiyallahu taala anhu.
radiyallahu taala anhu benn jaam képp la.
benn jaam képp la awma xawma manuma.
awma xawma mënuma képp ku may bëgg.
képp koy bëgg bëgg ma ngir yàlla.
bëgg ma ngir yàlla ñu àndandoo.
nu àndandoo bokk liggéey.
bokk liggéey
loolu ne loolu
yéen bokki taalibe yi ñun bokk taalibe yi nañu yeesalaat parce ñoo que yeesalaat pas-pas yi suñu delloo suñu delloo kër yi kenn ku nekk kenn ku doonteele Abdoul Aziz dafay wax lii doole tële nee na nee na Abdoulaye dafa wax nii pour ñu naan ceey waa ji la buur di ren bi li ci Abdou wax kenn mësu ko dégg ji waay daal moo xam lu muy wax fekk man wax naa ko te du ma ko jëf fekk moo wax na ko ba nga tudd ko jëf nga dégg ko yi ba ba nga fi dem bañ ko jëf yi ñu leen war a digal pour ngeen di ci mucc ëllëg ñu war leen ko kon yi ñu leen war a digal ngir lu mu ci ëllëg ñu dul ko wax lu toll te yoon waa ngi te nii yoon waa ngi nii yal nañ ci yàlla jàll jàll ci yàlla jaare la ñu ngi leen di sant ne mu leen di sant ngeen baal ñu xàq guddee na ñëw guddee naa dig boobu ci man sama bopp ci yaram yaram dafa neexul bi bi ma ñëwee dig bi mu ñëwee dama yónnee ci sëriñ dafa Jóobu yónnee ci seen njóobu ñan ku mucc jil ma ma ziyaara pour ak ñi ma ko àndaloon mu ziar ñi mu àndaloon ma jóge fii mu war a jóge jaar fii.
ci Seydi war a Aboubacar jaar ci réew ma ci ziar fekk mu tëj fekk mu tëj guddi léegi nag léegi nag ma jaar mu jàpp mu jógee moo ma fa tax a yàgg yàgg tax mu yàgg fa dañ fa doon lañ fa doon def ci burdu ba te buurdu ba ma far toog mu far toog waaye fekk na yónnee naa ci sëriñ Jóobu ne ko sama waaw yaram neexul maa ngi jullee ci kër gi waaye fekk na wóolu sëñ jóobu ña ni ko sama yaay ñëw maa ngi jullee te sëñ tàngi ma waaye man su ma fi ñëwul waaye moom bu fi ñëwli te li fi war a dox ñu doxal tey ko bi war a dox ñu doxal ko mi ngi mel ne Seydou Hadj Madi mu toog ñu rek ngi mel ni seen xaaju maa ngi mu toog su ma ñëwee te doxaluma li ma fi war a bu doxal ñëwee ci doxalu li ñu war a doxal du du du jëriñ dara ñëw du am benn njëriñ ko kenn ku nekk ci ñu mën na remplacer morom ku ne nee mën na remplacer morom waaye bala maa dem jàkka ja du dem waaw bala maa dem jàkk yéen sëñ Abdou dem bala maa dem ci burdu ba du bala dem maa dem ci bëgg ba sëñ Abdou dem soo sàgganee Abdou dana dem te doo jëriñu boo tàgganee di nga nekk Abdou ba mu dëkkaloo
ndax xamuloo ki nga bañ a bokkal burdu ndax xam nga ki jamono yi bokkul bëgg moom Abdoul Aziz kan ñoo kan na ci yaram mu morom ma moom ëllëg Abdou xam nga kan seen morom la ca kanamu sa yàlla kanamu la loolu kenn xamu ci loolu kenn dara xamu ci dara la ni ma ko umpale noonu ngeen ko umpale ni ma ko umpule ñun ñëpp loolu la umpule kon nag wut leen yàlla fépp kon nee nañu wut yàlla fépp bu ñàkk ngeen ñu daje ñàkk mu daj ko
gannaaw bu loolu wéy gannaaw bu loolu yëpp
daje nañ fi nekk nañ kërëm
yàlla yàlla yow mi nga xam yow mi nga xam ne
yaa moom daaw yaa moom daaw moom li ci diggante moom li ci diggante daaw ak ren moom ren moom ren moom li ci kanam te xamuñu ci dara moom ci kanam te xamuñ ci dara ndegam li ñu weesu woon dañu xamatul dara ndegam li ñu weesoon lañu xamatul dara te tegoon ci suñu te bët tegoon ci suñu bët xamoon ko xamoon ko rawatina li ñu gisagul rawatee li ñu gisagul déggaguñu ko déggaguñu ko yàlla feeñalu yàlla feeñal te film bi pare na ba noppi pare na ba te noppi il faut mu fay fokk mu feeñ bés bi rek lay ne bés bi rek lay ne
yal na yàlla xamal boppam yàlla na yàlla xamal boppam yal na yàlla xamal yàlla boppam na yàlla xamal boppam moom mi nga xam ne mooy xamal nit lu mu xamul mooy moom mi nga xam ne mooy xamal nit bi mu xam yal na yàlla xamal boppam yàlla na yàlla xamal boppam te jubal ñu te mu jubal ñu ci gindi ñu ci jubal te dëgal suñu àndandoo ak Seydil Hadj ñu Malick dëggal suñu àndal ak seen xaatimaay ci dégg waxam ak roy ko ci dégg waxam ak roy yal na yàlla dëgal suñu àndandoo ak Cheikh Ahmed Tidiane yàlla yàlla dëggal suñu àndal ak Cheikh Ahmed Tidiane ak ak Rasulullah Rasulullah ci dégg seeni wax dégg seen i wax dégg seeni ndigal seen i ndigal di ko topp di ko topp bàyyi tere yi bàyyi tere te ñoom te diglewuñu ñoom diglewuñu yàlla digle yàlla digle jaarale ko ci ñoom jaarale ko ci ñoom terewuñu terewuñu yàlla tere yàlla tere jaarale jaarale ko ko ci ci ñoom ñoom.
moo tax yàlla de moo tax yàlla wa ne ma ataakum rasulu faxuduhu wa ma nahakum anhu fantahu yàlla ne lépp leen leen ci bi dikkee na ngeen ko jàpp te def lu mu leen tere bàyyi leen ci maa ko def cheikh ne lu ma leen wax radiallahu taala sama Tidiane ne lu ma leen wax radiyallahu taala lépp lu ma leen dikk lépp lu ma leen dikkee andi ko andi leen ko teg ko ci balaasu mais da sharia ngeen ko yëg teg ci base sharia su dëppoog sharia dëppoog sharia fab leen jëfe fab leen jëf su dëppoowul su dëppoowul sànni leen ci àll ba leen ko ca àll ba te xam leen ko ne jëf.
sama bakkan te rek xam ne loolu sama bakka def cheikh a ko wax de Cheikh Ma Tidiane ko wax
kon nag kon nag nañu góorgóorlu ci waxtu juróom góorgóorlu ci julli juróom góorgóorlu ci cangaay farata yi Daara farata yi nañ ko laaj nañ ko laaj nañ ko laaj nañ ko laaj nañ ko laaj nañ ko laaj nañ ko laaj ñëpp xamuñu ko ñëpp xamuñu ko nañu góorgóorlu ci njàpp nañ góorgóorlu ci njàpp nañu góorgóorlu ci nañ tiim góorgóorlu ci tiim nañu góorgóorlu ci nañ julli góorgóorlu ci julli nañu góorgóorlu ci nañ pase yi góorgóorlu ci fase yi ak takk yi ak takk yi ak fayli yi ak fay yi nees koy defe nees koy def te bañ a topp suñu bakkan bañ a topp suñu bakkan
bañ ñu dem jëliyaat bàyyi dem ba nga dem jëriñaat jëli koo xam ne kii gannaaw bi loo ca amati rek jëriñ koo xam ne gannaaw ba loo ci amal su sariya amoon su sari amoon soo génnee àdduna du la nga donn ne adduna du la doon te bari da loolu léegi bari na lool ci jamono te moo di wolof yi dañu joxul kenn seen bopp te mooy olof joxuñu kenn seen bopp même Seydil Hadj Malick mi joxuñu ko seen bopp mais même suñu xaj may bi sax joxuñu ko seen bopp suñ ko joxoon suñu ko joxoon ñun suñu suñu bopp ko joxoon suñu bopp li mu bëgg li mu bëgg te di ko te santaane di ko ñu def ko kon nu def waaye lu mu ci waxtu neexu ñu ñu lànk ci wax te neexul suñu bakkan bañ waaye du du du mën a nekk waaye loolu du mën a nekk ku joxul yàlla sa ku bopp joxul yàlla sa bopp joxuloo ko jox ko rasulullah rasulullah na nga koy joxe na Cheikh ko Ahmed Tidiane jox ma Tidiane na nga koy joxe na ko Seydi Hadj jox Seydi Malick Hadj Malick sa bopp nga jox sa sa bopp bopp nga jox sa bopp soo fi noppee gis lu la loolu neex dina fekk la neex dal dina sama yoon daal di ne sama yoon newul
ñun lépp loolu la ñu ñun doxal ñëpp loolu lan dox ñun ñëpp loolu la ñu ñun ñëpp loolu lan dox kurusiye bari kursiye bari waaye taalibe bari waaye taalibe bariwul
téeméer boo gis téeméer boo gis soo ko seetee soo ko seetee kenn rek a ca kenn wóor da cee wóor
ci lu bari ci lu bari
surtout tariqa Cheikh Ahmed rawatina Tidiane rek te rek sama tiyaan bi nit ñi fooye nañ ko fooye boo xam ne nit ñi fay nañ ko fay boo xam ne bii doyadal ko doyadal boo xam ne fay boo xam ne bii joxatuñu kenn seen bopp ñoom kenn seen xarm seen bakkan la ñu jox seen bopp seen bakkan la jox seen bopp ak li neex seen ak li bakkan neex seen bakkan ak li neex li leen neex ak neex ki leen neex ak li leen neex ak li leen neex jeex na jeex su loolu amatul loolu amatul rek faale wuñu kenn faale wuñu kenn
te it day kan
nañu góorgóorlu nañu góorgóorlu par parlo bii nga xam ne mi ngi tàmbali par par loolu bii nga xam ne muy tàmbali
ay nitu caaxaan ay nit caaxaan yoo xam ne fa ñu nekk jëriñuñ fa dara yoo bokkuñu xam ne fa ngeen a jëriñuñ fa dara fa ñu boolewul seen bopp waxi na fa ñu boole seen bopp kon wax na ndegam fa ñu boole seen bopp la ñu nekkul dara ndagam fa ñu boole seen bopp lañu newul dara rawatina fa ñu boolewul seen bopp rawatina rawatina fa ñu boolewul seen bopp ñooñu ne kenn du leen dégg ñooñu kenn du leen déglu kenn du leen topp
ay nit a ngi taxaw yoo xam ne su doon seen sago kër Seydil Hadj Malick fi ñu toll ak kër Serigne Touba ak doomi soxna doomi soxna yi ci réew mi ñu ngi tojante ba pare.
waaye ñu koy taw yoo xam ne yéen a taw te suñu xaalis ak te suñu Touba ak doomi soxna yi ci réew mi dañuy tojante ba pour ñu lay pour profito samp seen bopp.
ngir për rek pour samp seen bopp am na ñu koy dox.
am na ñu koy dox
ndax ki nga xam ne dafa bëgg a dindi gëm-gëmu taalibe ci xol.
ne ki bëgg a dindi gëm-gëmu taali bi ci xol woyofal ne ko ak sëriñ du dara.
waaye faral ko ni ko am seen kër du dara da ngay tardeel sa bopp.
da ngay tardé sa bopp dëgg du dëgg
xanaa dañu gisul lu ñu bind.
ne xanaa ñooñu dañu ci la ci bind la xew ci aalamul arwa.
la xew ci aalamul arwaa dañ ko gisul.
dañ ko gis am na lu fay xew.
mais am na lu fa xew suñu borom tabaraka wa taala.
mais suñu borom tabaraka wa taala lamma xalaqa al arwaaxa ba mu bindee arwaax mais ba suñu borom bi ne rox yi dafa leen dajale ci dafa leen dajale
xaacu leen ne xaaju ne am ñu jóg daw am ndax tiit am na ñu daw ndax tiit
am ñu ñu lànk ne duñ ko am na def ñu lan toog duñ fi jóg
yàlla ne leen waaw yàlla leen waaw yéen lu tax seen morom yi dem ngeen toog yéen nga xam ne moom ngi tiit ba dem ngeen toog ñu ne ko fu ñu jëm ñu ne ko fu ñu jëm fu ñu jëm duñ la fa fekk fu ñu jëm duñ la fekk kon bi nga ñu xase boole sa bopp sa bopp sa bopp duñu teqale suñu bopp yow suñu bopp yowati
mu ne kon ñii dem mu ne ko ñu dem defe ne mën nañu taxaw seen bopp defe ni mën nañ taxaw seen bopp lu ñu am seen pexe leen ko ñu may am seen pexe leen ko may danaa leen bàyyeeg yéen seen leen bopp bàyyi seen bopp yéen ñi ma doy yéen ñi loon ma doy loo nag lu ma am lu ma am ngeen bokk ngeen bokk ko ma ma jox leen
nañ dem ci téere yi nee loolu ñu téere yi ñu bind ko mu ñu leen suñ demee dañ ko ci fekk buñ dem téere fekkoon dañ ko ci fekk dañ ko si fekkoon bu baax a baax a baax waa
bu baax a baax a baax dañ ko si bu baax
kon kon
kenn ku nekk fonkal sa sëriñ kenn ku ne fonkal sa sëriñ jëmeel ca kaw ne fonkal yëkk ci jëme ci kaw loo man defal loo man defal ko ci teranga ci feraan ci màggal ci màggal ci fonk ci fonk
jox sa jox ko sa jox ko wërsëg sa wërsëg ci sa kemtalaay kattan ci sa coobare bopp ci coobare bopp waaye kirul sa sëriñ te di sa mbokkum jullit dinitu yàlla bàyyi ko waaye waaye ci lu sa sëriñ kenn sa mbokkum julli sëriñ ci yàlla war maa ko sa bàyyi ko yàlla ne ñaar laa takke geer yàlla nee na ñaar laa tàkki gee képp kuy xaaga sama awliyaa yi képp kuy xeex sa wëlu yi dana dal ci sa daa dal kaw sa kaw képp ku bàyyiwul riba képp ku bàyyiwul yekk riba dana ànd ak sama yonent daa ana saw yeneen dal ci sa kaw dal ci sa kaw.
xeex ak yow xeex ak yow.
yàq sa lépp yàq sa lépp yàlla yàlla mu sa ci loolu bii ci xaritu kursi la ko wax bi alquran man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harbi ay aadantu lahu bi anni muharibun la yàlla wax loolu ci xadisul kursi képp koo xam ne ñu tax na dama ci yaay te mu ñu ñu ma tax yàlla mu sa ñu waxanteeg ñi gëm ne yàlla wax ci ñu gëm ya ayuha alladina amanu taqu llaha wa daru ma baqiya min arriba in kuntum muminin yéen ñi gëm te ragal ma lépp loo xam ne li lu bokkoon ci riba la bàyyi leen ko yàlla ne yéen ñu gëm ko ragal lépp koo xam ne ma bàyyi in kuntum muminin da nga nekk gën a moo indi condition yàlla di condition fa in lam tafaalu ne su ngeen lankee nag su ngeen lànkee rek bañ a def loolu bañ a def loolu maa ngi leen di yëgal ne takk naa leen ger maa ngi leen di yéen ko rek kàtt naa leen man yàlla man yàlla mag sama yonent alxuraan a ngi nii ne alxuraan yi
kon nag nekkoon na su ngeen delloo kër yoon na ngeen góorgóorlu ci seen julli juróom ngeen xam ko bu baax góor gi amoon mbay ne déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn waay bu julli ci kanam benn waay bu julli ci kanam julli ba sëlmal julli ba sëlmal mu ne ko demal julli jaar waaye dama julli waat julli wuloo mu demaat mu demaat mu ne ko demal julli ji waaye dama julli julli wuloo ba muy ñett ba mu yoon ñett si yoon mu laaj mu ko laaj ko ko nan la ñuy nañ la julli ñuy julli mu ne ko yonent bi ni su waxtu jotee waxtu jotee da nga jàpp ba nga jàpp da nga jublu ba penk nga jublu penku daf lay wóor ne déyaalewoo kenn ku dul yàlla daf lay wóor ni déyale woo kenn ku dul yàlla in lam takun tarahu innahu yara boo yow boo ci yàlla yàlla yàlla lay gën a gis boo xamee ne gisuloo ko moom mi ngi lay gis boo xam ne gisuloo ko moom mu ngi lay gis nga bàyyi lépp ci nga sa gannaaw bàyyi lépp ca gannaaw
ne allahu akbar Allahu nga akbar.
nga taxaw ba temm nga taxaw ba temm ba ne rog ba di rom yëkkati say loxo yëkkati say loxo mu tolloog ba say mu loxo tolloo say nopp am na ñu wax leneen am na ñu wax nga leneen ne nga di allahu allahu akbar akbar
fab sa lépp ak sa fab yàlla lépp ak ko ci yàlla sa kemtalaayal nga def ko kattan sa kémti lay kàtt ndax jullee nga leer goo xam ne nee na jullee nga leer boo xam ne bii du leeral lu dul xol yi ñi nga xam ne dañu ragal yàlla ñu leer ñu ko xool ñu leer yàlla
su ko defee mu ne mu ni
say cër ne rogg seen kër bi lool nga jàng nga fatiha jàng fatiha ak saw ak saar saw saar wala sa aaya wala sa aar ba mu àggal ba mu àgg nga ne temm nga ni tem ba temm ba tem rukkoo rukkoo ba sax ba sax siggi sikki ba ne nga temm ni tem dooru yul yooyu sujooti si góor sax fa sax kemtalaayal subhaana rabbiyal ala rabbel ala juróom benn yoon juróom benn yoon wala walla nga def ko nga ñett def ko ñett yu yoon yu dérëyoo
di nga siggi toog siggi toog allahuma xfir li allahumma xfirli warhamni warzuqni wahdini waafu anni wa aafini am na ñu wax leneen ñu wax leneen su noppee su noppee nga jóg nga jóg àndandoog allahu akbar allahu akbar ba temm ba temm ba julli gi ba sotti julli gi sotti noonu lañ ci bëgg njàpp mi dafa am farata jàpp am na farata cangaay dafa am ngaay am farata na farata tiim dafa am yéen am farata na farata koor am war farata am na farata
zakat noonu asaka am na ko aji makka añ noonu makka am na ko te itam siis ñeenti ba- tànk la baaxoo mais six ñeent tànk la baaxoo am kon l'islam it euh, quatre cinq piliers la am nee ko lislaam juróomi pied la ba ci jëkk ba ca jëkk moo di nga gëm te wóolu xam ne yàlla la bind moo la moom te benn buur amul bu dul mu moom gëm wóolu xam ne yàlla la jur te benn buur amul dul moom fas ci sa xol nga fas sa xol
gëm gëm wax ak sa làmmiñ wax sa làmmiñ jëfe ñu gi jëme ak say cër bi
loolu la nee loolu la fas ci xol fas sa xol tudd ak sa làmmiñ jëme sa làmmiñ jëfe ñu gis jëme lu gis.
nga def koy ci sa laay bi yàlla sa yàlla sa yàlla sa ak téere yàlla yi yàlla yi ak li mu yónni ak li mu yónni gëm na lu neexam gëm lu neexam ak lu ak naqadam lu naqari gëm dee gëm dee gëm dekki gëm dee gëm bés penc ba gëm regle ba gëm rek yàlla gëm kawsara gëm kookara gëm siraat gëm siraat gëm safara gëm safara loolu moo di njulli loolu moo di julli topp ko nag topp ko nag di ko yaakaar di ko ñaanu mucc foo toll te musalit say moroomi jaam bañ a wax lu bon su loolu amee bu loolu amee
nga topp nag sa sare nga topp nag sa tali am na benn taalibe cheikh am na benn daal bu Cheikh radiallahu taala anhu radiyallahu taala anhu bu wax ne bu wax
yow cheikh yow Cheikh yow yàlla yow la maa ngi lay seedeloo ne maa ngi lay seetloon sa awliyaaw yëpp gëm naa leen loolu yow yëpp gëm naa leen sopp naa leen sopp naa leen teg naa leen ca kaw teg naa leen ca kaw du ma leen gaaral bu doon gaaral du ma leen wax lu bon bu ma du ma leen wax lu bon du ma leen bañ du ma leen bañ waaye nag waaye nag am naa sañ-sañu tànn keneen ci seen biir def ko ne muy sama ngardag am naa sañ-sañu tànn kenn seen biir la def ko muy sama ngardag muy Cheikh na Tidiane Cheikh na Tidiane mu ne mu ne rabbi inni sadaqtu kulla waliyin raayan qadrahum bi ayni ixtiraami gayra anna bna salimin huwa kahfi wa malaadi wa umdati wa imam kooku rek sañ na ko loolu dara nekku ci waaye nag diwee ci ma sëriñ waaye juróomi sama sëriñ tax nga kontar ci ñu tànn def kontal yi ci des kontar sa mbokkum julli kontal sama kum jullit ne yaa ko gën tariqa yow gën tarix tax nga bëgg ko xeeb nga bëgg ko xeeb loolu Seydou Hadj May bokk na ci li mu bind ne mën na omma nit ba yóbbu ko ci wedd yàlla te du ko yëg téere ni mën na wom ma ci ba du
ndax da ngay dem da ngay dem ba dootoo gëm ndax dara da ngay def ci loolu di ko ci cëre ba du gëm dara yal nañ ci yàlla yàlla mu yal na ci yàlla nañ ci yàlla mu yàlla na ci yàlla boole kon nag nañu kon bëggante nanu bëggante murit bi murit bi laayeen bi laayeen bi xaadir bi xaadir tijaan bi bi tijaan ñun ñëpp bi ñëwee nañu nan bëggante bëggante
ñoo bokk benn lal noo bi bokk benn lal muy suuf si muy suuf si
ñoo bokk fa ñu jóge noo bokk fu ñu jógee ñu naa xalaq naa ko ne ci suuf suuf la ñu bind ñoo bokk fu ñu jëm noo bokk fu ñu jëm wa fiha ci nu'idu suuf si ñu jëlee woon ci la ñuy jël ñoo bokk fu ñu jóge ëllëg bokk fu ñu jógee ëllëg wa minhaa nuxriju ne ci la ñuy génnee wax ci la ñuy génnee
sadaqa allahu alazim ana seydi alhaaj malik nee na Seydi Hadj Malick
ayna rasulullah ana rasulullah di baax gi génne fii bésub talaata keroog góor bu baax bi ci julli ci salaat dara dañ danañ ko waajale rek dañ nañ ko waajal rek nañ gas pax buñ ko def gas pax bu ñu ko def te ba ayna rasulullah ana rasulullah di baax gi génne fii bésub talaata keroog góor bu baax bi ci julli ci salaat dara dañ danañ ko waajale rek dañ nañ ko waajal rek nañ gas pax buñ ko def gas pax bu ñu ko def te bàyyi ko borom bàyyi ko borom loolu lañ def rasulullah loolu lañ ko rasulullah ñëpp foofu lañ war a xalaat foofu lañ ko
te kenn xamulul sa bopp dara ana Seydi El Hadj Malick tey ana Seydi Hadj Malick moo daan toog fii moo daan toog fii
ak ñeneen ak ñeneen
mu jóg fi Seydi Aboubacar di fi ci toog lañ bëgg ci di toog ak Serigne ak Mansour sëñ Mansour ay nahum anañu
ñu nit ëllëg ay nañu nee nu nu ëllëg yàlla na yéex anañu
foofu rek lañ jëm boobu rek lañu def
loolu mat na def xel loolu mat na def bàyyi xel te góorgóorlu te góorgóorlu bañ a xeeb sa mbokkum jullit mbokkum jullit jàpp ne moo la jàpp gën ne moo la gën
jàpp ne moo la gën jàpp ne moo la gën man zanna annahu xayru min al kalbi fal kalbu xayru minhu nee na waxtu woo xamante ne ka gën ko doon xaj te du yàlla xaj xaj la gën foofoo
yal nañu yàlla dimbale yàlla na yàlla dimbali
kilifa yi nga xam ne ñu nekk ci réew mi kilifa yi ci réew mi yal na yàlla gën a boole seeni xol yàlla boole seen xol
te itam déggal jox noppi déglu ndigal seeni taalube te jox na ci ndigal seen tànn defal leen tawfiq ci topp ndigal yi defal leen tëf ci topp ndigal te boole leen ñu bokk ndey ak baay boole leen ñu bokk ndee ak bàyyi taalube yi yëg loolu taalibe yi yëpp loolu àndandoo ci loolu àndandoo ci loolu bokk ndey ak bokk baay ndee ak bàyyi di daje ci jàkk yi di julli jàkk yi di julli di daje ci jumaa yi di julli jumaa yi di julli fu wér du weer jotee du jotee kenn ku nekk kenn ku ne nga fab sa nga wax sa tariqa tarixa wér ku sa morom xewle nga borom xewle ci ngénte ci ngénti nga dem nga dem soo ko mënee dimbale mën a dimbali nga dimbale def ko bañ koo xas bañ ko xas mu bañ la mu xas bañ la xas nga bañ koo ŋañ bañ ko ŋañ mu bañ la ŋañ laa ŋañ nga yéene ko lu baax yéene ko lu baax mu yéene la ko.
mu yéene lu baax
soo ko mënee dimbale loolu dimbale mën a dimbali def su su la mënee dimbale su la dimbale mënee dimbali moom it dimbali la sànq rek am na benn sëtu Cheikh Saad Sa- Saadu Abi bi ne ak sànq rek maa ngi gën a sëb Cheikh Sadou Ami bu ñëw ci man seet si ma moom fii ci Aliouma ni ma man Cherif la ni ko man Serif la waaye dama la sopp rek ngir wóolu la rek laa toog ak te te seetal seetal nii ni ñu baax seetal ni yëpp ni ñu baax bokk na ci li nga xam ne Cheikh Saadu Abi wax na ko Seydi Hadj bokk na Malick ci Cheikh Sadou Abi yi wax Seydi Hadj Malick
ci tagg mu ko ci tagg tegum ko tag ci roy gu mu roy yonent ci bi roy gu mu roy yonent bi ba mu tax ko am lu kenn amul mu tax koo amul kenn amul mu wax koy ne ko sa wér du wenn wér du mel ne moom ku wër bi ni nga wër ko weer weer wenn ni wër du mel ni moom seetal bi ñu baax rek Seydi Hadj Mari wax ko loolu moom it Seydi Hadj Malick wax ko loolu moom itam wax bu rafet wax bu rafet loolu moo di kàddu loolu bu mooy baax kàddu jullit bu war a baax nañ leen jéem a roy nan leen jéem a roy kenn ku nekk téye sa kenn ku bureau ne téye sa bureau bureau ndegam directeur nga bi dem directeur nga wala chef de bureau jël nga sa bureau la nga yaatal sa nga dënn yàgg sa dënn muñal ñi nekk ci sa suuf muñal la sa suuf kii rek féete kaw muñal la féete kaw muñal la waaye waaye bu la yàlla joxee ba doole yàlla joxe doole jox la xam-xam jox la xam-xam tànn la ci sa biir daan mboro rek sa biir mbokk jiital la jiital nga nekk ci seen nga kanam nekk seen kanam nga nga topp loolu nga topp loolu ba tax nga fab yet xeex ak jaami yàlla yi yàlla yi yàlla dana la fekk fi nga toog bëccëgu ndare kàmm xeex ak yow te kenn du ci man dara nga topp suñu dara kam fexe yow te kenn du ca man dara ñi ñu yilif nañu déglu ndigalu ñi kii leen yilif ñu ni yilif dañuy diglu ndigal kële yi te topp ko te topp
ki yilifa yi ci yi fay na roy yàlla naroo yàlla ci yërëm jaam yi leen jaam ak dimbale la ak dimbali leen lu mu leen mën a bu suturaal leen mën a suturaal ci yàqu-yàqu bu xew yàqu yàqu bu xew ci seen liggéey seen liggéey mu teg ca tànkam teg ca tànkam ba loolu ba sax loola saafara su ko ëppee loxo nag boppee loxoom nag lu mu ca lu man mu caman ci garam ci ramm mu def mu def ki ñu yilif ci it yili si bu mu yàq liñ ko bu mu jox yàq liñ ko jox bu mu tooñ bu mu tooñ bu mu def lu bu mu jàpp def lu jaadu te
jabar ñu ne topp jëkkëram jabar du topp jabar du topp jëkkëram bu mu dem di bu mu xaritoo def keneen xaritoo keneen gën a dégg waxi kooka waxi kooka doom ji na topp baayam na topp baayam bu mu topp beneen xarit ku beneen xarit wacc ndeyam wacc baayam ba ci baayam déglu waxi ñooña ñu wax ñooña ku ko def ku ko def doo am ngërëmal doo am yàlla gërëmal yàlla taalibe bi na topp sëriñam topp sëriñam sëriñ bi ne dimbale taalibe bi dimbali taalibe bi teg ko ci yoon wi muy jariñoo yoon mu jariñoo
yal na yàlla saxal yàlla kilifa yàlla lislaam sax bi kilifa lislaam suñu kilifa yi diine yal na leen yàlla yi yàlla saxal yàlla sax yal na yàlla gën a boole yàlla yàlla gën a boole xol yi te itam jamono bi neexul te dëgg la jamono bi neexul dëgg la waaye bu leen tiit waaye bu leen tiis
nawet bu naaw beeg nawet bu naaw beeg
ak gerte gi nanguwu la gertegul amula yëpp yàqu na yëpp yàqul picc yi ñaata tool la ñoom nekk ci ñaari toll na
jën yene seen tool mais jën yi ci jën ana seen tool weñ wi nga dëkkal ci kër gi ana toolam ci kër gi ana toolam loo lekk mu lekk loo lekk mu lekk mën a tool mën la ca dara ca dara mën a loo ko dara mënuloo ko dara
mën a loo mooy mën a loo weñ wi dara dara nga mënul wéy ngi rek mi ngi naaw rek mënuloo ko tuuti lu mu fab ci yow it rëcc na la lu mu fab ci kat si jëm rëcc na la man ko doo ko dàq
yaa ayyuhan naasu duriba masalun fastami'u la yàlla ne nit ñi aw léeba ngi ni ñuy sadd déglu leen ko
ne suñu borom ne yéen bindee fi léegi ngi mu ñuy sel déglu leen ko déglu leen ko waay déglu leen ko wu reelu lu réel la إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ñi ngeen jàpp ñu di seeni yàlla suñu boole woon seeni puissance ak seeni science ak mathématique ak lu ñu mën a xam pour former benn weñ ba mu naaw du ñu ko mën
boole xam la kaay yëpp mënuloo bind benn rek wa in yas- yaslubuhumu zubaabu shay'an la yastanqidhu lu leen weñ fabal itam mënatuñ ca dara daaw fa
يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لا لك واجعل حسابي غير منحرف والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأوان يا نادمين وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما لاحظ على بات البالغ حصبا واتب العيس هادي العيس بالنغم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من برئه في طيبة حرام وإثمه قسم من أعظم القسم وهذه برنة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم